dama ñuy fàttali rek ne OFNAC dañ ko jëlee ci commission indi ko ci autorité administrative indépendante loolu aussi muy écart bu mag parce que commission daanaka amu kon benn statut boo xam ne ni bu rëy la mais li autorité administrative indépendante la ko président def comme médiature comme ARMP comme ARTP yooyu yëpp ay autorité administrative indépendante nañ kon kooku président bëgg na jox OFNAC doole bëgg na aussi ñuy saytu. li nga xam ne mooy alalu réew mi loolu tax mu créé loolu lu bees mënoon na ñëw bàyyi fi li fi nekkan mooy IGE mooy Cour des comptes mais dafa ñëw créé beneen structure boo xam ne nii la ko def autorité administrative indépendante na ko nag sa rapport boo ko boo ko bindee ba pare da nga koy jël jébbal ko procureur jëlatu sax nga ma koy jox parce que nit ñi dañu wax mu njëkk naan buñ bindee buñ defee rapport yi dañ ko jox président mais président na ko léegi non seulement autorité administrative indépendante nga mais boo defee sa rapport jox a la volonté de mais malheureusement dañoo constater que ne nit ñi aussi dafa am lu ñuy jaawale OFNAC ci exécutif la bokk Nafi Ngom Keïta c'est un fonctionnaire la donc moom tam ci exécutif la bokk le chef de l'exécutif mooy le président de la république président de la république mooy nommé au fonctions civiles et militaires kon moom ma jàpp ne moom Nafi Ngom Keïta mook moom Ousmane Sonko li ñuy wax tubaab c'est une bande de maîtres chanteurs ñoo xam ne ni aussi dañuy utiliser seen position au niveau ci bi pour di def pression ci nit ñi loolu nag c'est inacceptable kenn ko nangu ba tax na yaakaar naa ne le président a pris ses responsabilités mandaam jeex na fal na keneen léegi li ñuy ñaan aussi parce que dañoo xool ci composition euh, OFNAC ñu xool ne foofu sax composition am na ay manquement parce que gisuma ci kenn koo xam ne nii am na une expérience au niveau de la commande publique parce que nekk enquêteur la fa soreeg lool maîtriser la commande publique te ñuy travailler mooy la commande publique les marchés boo xoolee rapport bi di nga xam ne a ko waral mooy ci ci AFNAC gis nañ ne am na ñoo xam ne nii vraiment ay boroom xam-xam nañ nag mais par rapport ak li ñuy liggéey seen expérience des nañ fa ba jox ñuy ñaan président bi mu nommé président bu bees ba pare présidente bu bees ba pare mu xoolaat même composition OFNAC bi ah li ci des nag ñun ñu dañ koo constaté fii ci cees mooy président de la république suñ problème APR mooy nit ñi li muy liggéey ci réew mi nit ñi xamuñu ko ba tax nañu au niveau de pour permettre jeunes yi pour permettre cadres yi ñu defal leen li ñu wax renforcement de capacité ba xam li nga xam ne moom la président liggéey ci réew mi yëpp ñoom ñu mën koo xam bu ko defee ñu mën koo vulgariser au niveau de population parce que lool mooy suñu problème président li mu def macha allah bari ci domaine yëpp mais malheureusement sénégalais yi niñ ko war a xamee xameetowuñu ko loolu nag faute bi nag ñun la léegi nag ñun loolu lañ bëgg a corriger moo tax ba incha allah 2017 ba 2019 dañuy préparer des renforcements de ci thème yëpp fépp foo xam ne ni rek am na réalisation ci secteur yëpp dinañ indi expert mu toog wax ak ndaw ñi wax ak cadre yi ne leen lii la fi président def lii la ci bëgg def ba nga xam ne ñoom ñëpp dinañ am jumtukaay matuwaay yëpp yi nga xam ne bu ñu demee seen commune yi bu ñu demee seen seen base dinañ ko mën a jot jotali nit ñi parce que nit ñi bu ñu xamee rek yaakaar naa sax jëruñu élection 2017 maanaam doxantu lay nekk élection 2019 aussi doxantu lay nekk bu loolu aussi ñuy lancer appel à les jeunes yi nga xam ne dañuy inscrit dañuy nekk conseiller ñu préparer élection au conseil de territoires ñu préparé wu dem voté ji ba nga xam ne dinañu mën a am majorité au niveau du haut conseil des collectivités locales loolu aussi ñi ngi liggéey ñi ci waxtaan ak ndaw ñi parce que bare ay ndaw yoo xam ne ay conseillers nañ te élection yi comme ni ko président waxee dañoo war a joxe signal bu fort opposition bi nga xam ne bu nee ba 2017 yaakaar na ne ñoom sax yaakaar na ne dem élection sax du leen ci du leen fekkati donc doxantu bi daal